merci beaucoup président waaw dañuy ñëwaat rek di la féliciter waat di la ñaanalaat rek yàlla dafa la jàmm ci sa ndomb bi mais salutations à monsieur le ministre des sports des finances du travail le directeur du budget vos collaborateurs mais cher collègues députés monsieur le ministre je vous félicite ci ndomb tànk bi nga xam ne son excellence de président la république daf la ko jox ñu di ci souhaité nag une réussite totale ci kattanal suñu borom monsieur le ministre man maa nga dëkk département Linguère dëkk commune Daara Jolof ma ñëw nag bëgg a wax ak yow ci ASC Daara muy ASC boo xam ne tey dañu toll ci national de bokk ci pool boo xam ne mën naa wax ne ni ñuy dajeeg ñépp dañoo am gazon synthétique ñun rek lañuy ñuy fekk si ñuy football ci suuf loolu nag monsieur ministre ma yaakaar ne loolu tey war nga ne ko mañ a régler ñun waa Daara Jolof ndax avant loolu dañu nekkoon ligue 1 ligue professionnelle mais nag manque ay moyen rek moo ñu tax a dem tey ñu delluwaat national 2 kon mën naa wax na ay ASC boobu tey c'est pour le département de Linguère ma di ci lancé nag un appel à tous les jolof-jolof ñu ñëw dugal ci seen loxo année bii passé monsieur le ministre le ministre Yankhoba Diattara l'ancien ministre ñëwoon na fa à Daara defoon la pose de la première pierre de la clôture de l'hippodrome de Daara toppoon naa ko nag ñu ne ma dossier bi ñëw na fi nga xam ne tey dafa naa au niveau de ministère des finance mais jusqu'à présent lañ fa waxoon lañ fa tegoon ma nga fa kenn démarré wu fa dara te yaakaar naa ne tey course ku koy wax ci senegaal doo ci bëgg génn daari Jolof ma gis ne defoon nañ fa course boo xam ne tey amuloon benn sécurité ndax ci air libre lañ ko defoon te y avait beaucoup d'autorités yoo xam ne ñëwoon nañ foofu kon monsieur le ministre ñu bëgg ngeen dimbali ñu ci suñu course boobu clôturer ñu ko dimbali ñu ci suñu stade boobu nga xam ne ñu département de li ASC boobu la ñu ngeen defal ñu fa gazon monsieur le ministre ma dégg nag léegi loo xam ne la présidente Aïda Sow jabar da ko wax ci yow ci maanaam sport au niveau de Guédiawaye kon dama lay interpeller monsieur le ministre nga jàppale ma ci suñu stade boobu ci li nga bëggee sport fexe ba ñun tim dans le département de Linguère la Jolof suñu stade boobu ñu def fa gazon am na beneen stade boo xam ne mi ngi nekk Linguère ñu di ko wax stade Cheikh Taku Koumé ñooñu tim soxla nañu gazon bëgg nañ ngeen jàppale leen les communes rurales maire yaa ngi góorlu mais nag mooy yu doyut ñu bëgg tim ñoom tim ngeen jàppale leen bu baax a baax ñu di la félicité nag ci li nga xam ne tey danga ko indiwaat mooy ci école yi muy sport boobu ndax ku ne xam ne ne sport dafa am solo te defe naa ne xale bu leen tàggatee ci ndaw ah ku ne xam na ne sport de li muy def ci feebar baax na lool ndax da koy wàññi léeg-léeg sax nga feebar nag dugg ci sport bi ba feebar boobu wér kon tey bu ñu commencé tàggat suñu xale ci biñ nekkee tout tànk yaakaar naa ne dana dem ba tey ndaw ñooñu bu ñu nekkee ay mag santé dana fa am kon monsieur le ministre ma di la interpellé waat rek une fois de plus ci suñu stade boobu monsieur le ministre nga jàppale ñu ci dafa ñu ci stade dafa ñu ci gazon ndax mënumaa na ñuy dajeek ay yeneen dëkk yoo xam ne ñoo bokk poul ñoom ñëpp ñu am gazon synthétique te ñun daara amuñu ko te ku ne xam ne nag la Jolof daye bu mu am ku ne xam ne le département de Linguère daye bu mu am kon monsieur le ministre nga jàppale ci suñu gazon boobu merci beaucoup merci beaucoup